maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax. mbaa am nga jàmm. maa ngi am jàmm bu baax a baax. mais eh, yëg nga xew musuma xew musuma xew musuma xew. mais li moom moo jaaxal ñëpp rek sa diggante Papa Boy Djiné lan moo tax yow da nga ko maanaam da ngaa mel ni ku ko ragal lool moo jaaxal ñëpp lan moo tax stratégie boobu. waaw lamb moo leen mel rek lamb moom moo xaw a doy waar quoi ba xamante ni noo ñëw rek daan da la war a yab nga am nee noo a ñëwee am nee noo war a bëree moo tax xam nga rek gars yi dañ ma yab xam nga teg ma si accident jox ma ay conseil xam nga li ma war a bëree moo tax ma ñëwee bëree noonu kon su ma la déggee conseil nga bëree. waaw conseil laa bëree conseil si biir conseil bi tamit xam nga am na leneen loo xamante ne da nga ko siy yokk pour mën a am li nga bëgg. waaw mooy si biir conseil bi bi ñu avant ñu arbitre am na trois avertissement ba profité la si avertissement yooyu noonu soo génnee ñaar day profité accéléré beneen beneen pour mën a am troisième pour bëgg a tolloo avertissement. foofu nag moment boobu coach si laay mën a a bëre. a garaaw lii mais sant mais li ma si xaaroon moo doon gën a garaaw lii parce que man bu doon man kese maa dem bëri ji aar bu si la nga jël communication boo communication bi ñu ne ma nii kii mu communiqué nen nii nga war a bëree voilà làmb bëre la daan ak daano match nul ku ne xam na ne euh, Papa Boy Djiné communication bi yëpp daf la doon maanaam minimiser naan la amoo dooleeg yooyu mais est-ce que yéen ñaar bi ngeen jàppante yéen kan moo ëpp doole. yéen xam ngeen képp doole man boo ma gisee mën nga gis ne jàpp ne doole nekk fa mais boo jàppante ma di nga xam doole fa wala nekk fa. parce que moom communication. amul mbër bu mës a bëreeg man taxaw ni man dama néew doole ku bëreewul ak man rek kay wax. mais amul mbër bu mos a bëre man taxaw ni man dama néew doole déedéet man mbër su ma la jàppee soo ma jàppee su bëggee mu dañ day dañ te man jàppee soo doon loolu yàlla def na ko si man. moo tax nga daw xeex. waaw parce que digalu ñu ma da xubaar si pare lépp mais digalu ñu ma pour ma xeex ak moom dañ ma digal yee dañ ma digal pour ma xeex ak moom moo tax xeexu ma mais su ma digal samay coach bu ma digal xeex ak moom damay xeex ak moom mais ma xeex moom xam nga man mosuma si xeex waaw mosuma reculer si xeex mais digal ñoo pour ma xeex ak moom moo tax xeexu ma. làmb doon lu doy waar instant mu mel ni tey euh, Bébé Bismi yóbbu na ci saako yi tey boo moom tey conseil boo koy jox lan lay jox. non si saako yi pour man làmb moo toll foofu. saako yi kay ndax dama teg non non mais teg la defee taxul nga def si saako yi na gën a góorgóorlu gën a gëmaat boppam man du ma xàddi man noonu laa mel man góoma xàddi man sax lu mu gën a métti damay gën a am yaakaar damay gën a dundee yaakaar parce que man su méttee damay jàpp yàlla am na lu ma dencal loo xam moo dàq loolu man su su méttee loolu laay jàpp te loolu tey moo feeñaat tey bi méttee dama jàpp ne li dàq loolu mooy ñëw tey li dàq loolu dafa gën a ñëwaat tey làmb ji bil na ma la musuma ko sama làmb xam nga moom wax na ko bi ñu waxtaanee tey dina musul bëri làmb ju am coowee nii man musuma bëri làmb ju coowee nii xam moo tax xam nga li sant yàlla quoi voilà très bien sant yàlla la sant yàlla vraiment sant yàlla. loolu loo xam ne aussi nag xaw ma dig ma ci tontu xaw ma doo ma ci tontu waaye naa la ko laaj. nee na yow dafa am loo ko wax lu ko métti loolu lan la Sénégal yëpp bëgg na noo xam loolu comme que nag combat bi passé na. man wax naa li ma leen waxoon wallaahi Azim waxuma ko dara su ma ko waxoon benn baat bu ñëw damay taxawaat Sénégalais yi ne leen baat bii laa ko wax parce que dama bëgg ëllëg lépp lu may wax rek mu doon lu leer. parce que am na ñoo xamante dañuy toog tey ni diw lii wax te fekk ñoo daa ko wax lu dul dëgg man bëgguma bokk si ñooñu dama bëgg respecté Sénégalais ñoo xamante lépp lu ma wax rek mu doon loo xamante dëggal si man parce que nit ñi fii bu naxante quoi ku si nekk xam nga sa bopp boo tëddee wéet bu la doomu aadama nga wax yaa xam du du dëgg man du ma bañ ko ma mere su ma defee la xamante ni erreur damay nangu dama def erreur su may ma jégalu xam nga su ma su ma mënee jégal jégal bu ma mënul jégal nag ma fexe def la xamante damay jégal wallahi azim mais du ma def la xamante ni dama def lépp di rek di jéem a taxal keneen du ma ko def loolu ñaanu ma ko yàlla si àddina waaw parce que ku wéet rek yaa sa bàmmeel quoi. sa maanaam ëllëgu bi nga jógee ci papa foo jëm. fi ma jëm mooy fi ma jëm mooy coach yi laa teg lépp seen loxo ak samay staff ak samay entraîneur ñëpp ñoom laa teg lépp seen loxo ma ne saa moom wax fa dëgg yàlla li ma li ma sas mooy lii ñëw liggéey ñëw jàpp sa ñaambur kase lan ma sas sasuñu ma leneen. ñu bari maanaam ne maanaam Bébé Bismi loxo yi mu nekkoon ak loxo yi daa wuute looy dëgg la wala looy weddi. lu wér la lu wér la lu wér la lu wér la lu wér lu wér la parce que fi ma nekkoon tamit du ma leen di naan tey bu neex nga fàtte démb te avant avant avant dara ñoom la woon te xam waa waaw pas avant lii ñoom la woon te même donte sax lépp maa doon defal sax bopp sax mais ñoom daal gunge moom daan gunge mais dafa dem ba xam nga équipe boo xam dem nga kenn nekkatu fa kenn nekkatu fa mieux vaut nga xam nga dem xool waa pour mën a sauter pour mën a dem xool li defar sa carrière quoi. dëgg la kontaan nañ ci. jërëjëf jërëjëf ñoo far ok amal jàmm.